asalaamaaleykum gars yi na ngeen def maa ngi leen nuyu di leen ziar leen fàttali yéen a ngi seen canal Galsen Tube la chaîne des youtubeurs ci seen programme comment gagner de l'argent sur youtube naka la ñuy xaalis ci youtube léegi leen koy defal di Pape Mor Lo ñu leen koy defal en wolof vidéo tey nag dañuy ñëw ci abonnement euh, privé nan ngay garder say abonnement privé loolu mooy lan mooy chaîne yi nga xam ne yow ci youtube yaa ngi abonné ci ñoom di leen suivre euh, su fekkee ni da nga da ko bàyyi paramétrage par défaut chaîne yooyu dañuy affiché ci fi nga xamante ni moom mooy sa biir chaîne muy onglet fii onglet chaîne soo ñëwee xam nga boo ñëw boo duggee YouTube day ñëw fii par défaut yaa ngi fii voilà léegi boo jógee fii nga ñëw onglet chaîne nga cliqué ko su fekkee garde woo li nga xamante ni moom mooy chaîne yi nga abonné euh, privé dafay affiché nii ñu bëri nag chaîne yi chaîne yi ñu abonné day affiché te nag xam nga yow ay chaînes yoo xam xam nga loolu dafa privé sa yëfu bopp la yow kese yaa war a xam chaîne yi ngay suivre ak yi nga dul suivre loolu nag da nga war a def privé pour dootul feeñ kenn du xam chaîne yi nga abonné non seulement euh, du feeñ fii ci sa chaîne nit ñi di xam yan chaîne ngay suivre mais ñi nga xam ne abo abonné nga seen chaîne tamit waaw duñu xam ni ndax yaa ngi leen di suivre parce que boo defee da nga bëgg a garder sa abonnement privé même ñi ngay suivre day privé si ñoom loolu nga bàyyi ko xel voilà. léegi loolu nan lañ koy defee pour dindi chaîne yi nga xam mooy affiché fii suñu onglet chaîne bi waaw lu simple la da ngay ñëw xam naa dañ te beneen vidéo boo xam ne pour téléphone la bii pour ordinateur la voilà mais nag boo ko defee version ordinateur tamit mën nga ko def waaw même chose da ngay fii nga xamante ni mooy euh, logo bi boo cliquer logo bi automatiquement. da ngay wàcc ci suufa suuf fii ñu def paramètre waaw paramètre bokkul ak paramètre bi nekk biir YouTube studio paramètre bi nekk fii la mi ngi nii da ngay cliquer logo bi wàcc paramètre soo cliquer paramètre page bi mooy ubbeeku nga ñëw fii à gauche nga xool fii ñu bind confidencialité confidencialité nga cliquer ko soo cliquer confidentialité moo ngi nii indil na la confidencialité fii lu mu lay wax mooy euh, ndax mën nga garder sa ay playlist yi nga enregistré privé wala nga garder sa abonnement yi privé mooy chaîne yi nga xam da ci abonné fii ngay coché voilà nga coché fii soo coché fii automatiquement enregistré wu na chaîne yi nga abonné yëpp day nekk privé yow ko sa yaa xam chaîne yi nga abonné waaw dootul feeñ tam ci sa chaîne YouTube loolu am am solo la bi ci kaw nag bu la neexee nga cliquer ko bu la neexee nga bañ ko cliquer bii mooy pour su fekkee da ngay garder sa ay playlist maanaam yi nga enregistré privé mun nga ko euh, mun nga ko cliquer fii comprendre bu ko defee playlist yi ngay créer bu ko nit ñi duñ ko mën a gis voilà waaye loolu man personnellement tax fii du ma ko def mooy playlist boo munti créer moom ci boppam ci playlist bi mën ngaa dem am may na la option nga def playlist bi da nga koy nëbbool doo ko nëbb waaw moo tax fii dama koy bàyyi nii playlist yëpp nekk par défaut public léegi su ko defee man bu ma créé benn playlist playlist boobu fekk daa am vidéo yi rek yu ma ci bëgg a def te bëgguma kenn gis playlist bi playlist bi soo ma nga dem ci paramétrage playlist bi nga def ko playlist bi moom ci boppam mu nekk privé noonu moo gën voilà léegi nii mooy ni nga xam ne noonu la ñuy nëbbee li nga xam léegi après ñu dem xool ba xam euh, affaire bi jàll na voilà léegi lu ñuy def cliquer waat suñu logo ñëw cliquer chaîne bu chaîne bi affiché ñu ñëw cliquer fii onglet chaîne xool buñ cliquer onglet chaîne gis nga benn chaîne nekku fi voilà seen boo defal promotion rek la moo fi nekk chaîne boo bëgg mu nekk fi yaay dem comme vidéo bi passé bi ñu defoon boo bëggee defal promotion benn chaîne boobu léegi feeñ fii nga xam ne chaîne bu yi la yaay tànn yi fiy feeñ ak yi fi dul feeñ voilà ni mooy ni nga xam ne noonu la nëbb ay abonnement su ko defee kenn dootul xam chaîne yi nga abonné même ñi nga abonné sax duñu xam ne yaa ngi leen di suivre kon ñu leen jox rendez-vous ba vidéo bi di ñëw incha allah